waaw lii lan la ni góor góor ku nekk di wax rek xam ngeen lan la foo war a jugee daal li ma lay waxee moo ci nekk foo war a jugee jugee na fa dana mu waree dañu war a wax dañuy wax loolu ngeen ma nag wax ngeen abaana yaa illallah muhammad rasulullah sama bëgg jombeem yéen da ngeen a mandem e xam la xew boo may tontu boo may tontu ma lay toog léegi yow la ko yaa la ko ala ko ko ko ko ko ko ko ko ko ah yaa ngi nii. Ndiaye doo lekk ndax am na war a def. waaw. ki gala ni. waaye yéen di nga la topp. waaye di nga dem man dem. waaye yow dañuy eh, eh, wax dëgg yàlla fii ku mel ni ñëw fi. fii de dafa aay. man de bu ma gis nga faale. waaw. sa jabar daal lekk na diwlin yu ngóor ak yii yëpp. yëpp ko nga soog. waaw bu leen mënee soog. waaw mais lu la naqari wax ko sa jabar. yow. ma ne dafa ndànk yow. li lay way yow. dafa ndànk yow.

tey ndey yàlla yàlla nga dee ndey. yow man la jël kuur gi. am la may nga dee rek la ñu. waaw ñu tëj rek ba saw. waaw. yaa bon yaa sew yow yaa bon yaa sew. waaw waaw yàlla nga dee yow. ma dee bëgguma lii. loolu ma ma dee ñi rey seen jëkkër ak ñi rey seen jabar. ete mo taw ko liu ya ya nga dool ko ko do ya ma ko yow ya ma ko ma ne la ko bo ko bela ko ko ke nga xam ne boobu koy war nga xam to ko jukki ah xale ma yow kat dara mënu ko mënu ko ya na bëgguma li lay ni lan la ni sonal nga nit ñi yaa ngi nii dañ nga sol suñu becc kaw jënd sa bëgg dugg ci waaw yow ya asa bi rek mënoon naa ko sol dama sol solal la ci do do ma la ko ko bëgguma li sama kër ndey. nag nag nag guddeeg bëccëg moo tax ah. dara du dugg si kër ah, dara. waaw ah, waaw baax na dara sonale naqar dara ba bëgg a dee yow du ma la reesa mu neex la te du ma jooy Welcome to a new TV show, Girl Talk. Girl Talk is designed to create a platform for girls and young ladies to share information about life and expectation with an aim to create awareness and a positive change in our social activities. In this program, we have five segments, relationship and life, I didn't have a boyfriend early, I'm not gonna lie. I don't go around asking for money or any other things from guys. I love him and he loves me. Always try to know how you look, your body type. It brings out who you are, it depicts who you are. It's about how you combine them together to have the final look that you actually want used to survive for how many years? 100 and something years. But now the life expectancy is only 65. Let's say, okay, I just say, okay, I have 50. But that's what I have. But if you want to be eating omelette. The card reads. Okay. Why haven't you ever dated a poor guy? I look for qualities, not how poor you are. If I find my man on top of another woman, I'll make sure you see me I won't say a word though. No, unfortunately, I couldn't pay it. her. Girl Talk is extremely entertaining and educative. Watch out. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bu neex li nga dégg ci réew mi nag. loo déggati maas. tri ji. Karcel dem na tri ji. a ñëw waaye gaañ yàkkamtu woon nañ ko de. maas yéex a ñëw. te doon qualité a ñëw te ànd ak speed bi ñu soxla. ñu segg ko seet ko ba mu baax nga xam ne buñ ko tegee kenn du am loo ci waxtu te am xat-xat ndax yaatu gaa tax du am xat-xat dégg na wute am na ci de buñ koy def dañ koy seet ko ba mu baax maas ñu teg ko ci table bi ñëpp jëriñoo ko waaw ñaata façon ngeen am nag am na ñu ñetti façon maas bii mhm. mooy tri ji bi 5 bii mooy dugg ci internet café yi bii mooy dugg ci compagnie si mag yi bii mooy dugg ci hôtel si mag fi nga connect ci 20 people ñaar fukki nit te du xat bii mooy tri ji leeso bi bii nag moom pour kër yi nga xam ne dañ am famille bu ndaw rek mun nañ koo jëfandikoo pour ñi nga xam ne ñoo yore business yu ndaw yi itam mun nañ koo jëfandikoo tri ji paat na mooy tri ji dëkkandoor laa ko tuddee yow rek sa kawlal rek yaa moom rek mu am ak nag ak qualité bi gën ci qualité yi dama la wax ne la. lii doo ko dugal ba pare di xaar bay xaddi bay bobbali balaa muy agsi booy dugal boo ko ne cuxuñ ma ne la maa ngi. wala jubala. billaahi triji yi ngeen soog a agsi yàgg ngeen ko dégg waaye bii dafa wuteeg triji yi bii triji yi mooy gamsel speed bi gaaw na qualité bi baax na dina jël nit ñu bari foo soxla rek def ko fa triji yi ñëw na ci gamsel réewi Gambie déglu leen ma de jóg leen yéen ñëpp nag dem ca gamsel uti yi bu kenn manqué Under the distinguished patronage of His Excellency the President, Chair Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jami, the organizing committee of the Miss 22nd July Scholarship Pageant proudly presents the finals of the fifth edition of the Scholarship Pageant, taking place on Saturday, December 7, 2013 at the Penchemi Hall Paradise Suites Hotel. The scholarship pageant is geared towards promoting excellence among girls in line with Vision 2020 for sustainable growth and development. The pageant is a display of academic potentials, talent and beauty. The theme for this year is promoting positive attitudinal change for sustainable development, the role of the youth. Support the Miss 22nd July Scholarship Pageant as the scheme will benefit all and sundry. waaw xaar ma nag ma ñëw yóbbu la Banjul ndax ñu naani warga Banjul warga Banjul waaw waaw warga Banjul dafa am warga bu tudd Banjul dafa am warga bu tudd Banjul ñëw fii ci réew mi bees ni ko xaran ñan ñoo ko indi fii ci réew mi xanaa nag el xela mi daan indi warga yi ah. seetaat ko segg ko defar ko ba mu baax mu tuddee ko Banjul indi ko fii ci biir réew ah dama ñooñu lu ñu indi mu neex de warga Banjul ñëw na ci biir réew mi dàq warga yi gën a neex warga yi dafa naana boppam ñam leen ko boo leen ko ñamee tax xam ci ku réew mi Banjul jóg leen nag indil nañ leen seen warga lal ko moom cee war nga Banjul naan leen waay eh,